tey làmb ji noo ko ah, la dëgg ah làmb ji wax dëgg yàlla moom ñun nañ ko doon xaaree séntuwuñ tey la dëgg bu làmb nekkoon na foo xam ne tey tey jii rek euh, mënoon a gën a yëkkati làmb tey gars yi bëre waaw macha allah moom Eumeu Sène tuus na mu neex na waaw itam tey itam doo ñëw indi mbooloo boobu feesal dell stade koo xam ne itam yow yaa mujjee am ndam ci kawam quoi kon nag lenn rek la woon taxaw gérer làmbam. te dañoo gis ñoom ñaar ñëpp ñëw téye seen bopp te tey bés bi laajul woon loolu. waaw parce que bés bi tey ñun waa Pikine lañ tey xam nañ ñun Eumeu Sène mooy suñu mbër mais xam nañ tey ñun bés bi nekkul suñu bés. waaw tey du bésu waa Pikine. nekkul waa Pikine parce que la de tey moom woon làmb ji moom woon lépp waaw comme ni mu demee woon si Boy Niang rek mais xam nga li problème bu la de guerre tey même tey nit ki tey même boo ko mënee tey nga ne da koy jàpp daan ko fu mu mënti nekk fekk ko fa parce loolu mooy nga jàpp ne kon Lac de Guiers moo waroon diriger. Lac de Guiers c'est normal parce que Eumeu Sène amul dara lu muy profité bu daanoon Lac de Guiers Lac de Guiers itam comme ni def rek noonu la ñëw taxaw léewtoo loolu kese la. da ngeen jàpp yéen tey nga seetaan mais kenn amu ci lu leen neex. non amateur yi moom amul kenn koo xam ne tey kontaan na si làmb yi moom waaw muy nga faral Eumeu Sène muy nga faral Lac lépp waaw parce que li doon séentoo combat bi tey

ah Eumeu Sène moom dañu koy wax ne góorgóorlu rek xam ne moom ñun moom moo ñu tax a jóg quoi moom duñu bàyyi duñu bàyyi mu moom dañ ko war a aj benn six six ans wala sept ans moom ah, ko dëgg yàlla moom nu mu gisee nag Eumeu Sène mën na mën na bëre war trop waaw la dëgër du bëre ko di ko bëre moom da nga lakk moo tax ma jar ma ñëw fii ma jógee euh, Fouta tey la ñëw 5 heures matin bis baa ne gaara kon umatam mbër ba xamante yàq làmba mooy nit boo ko fokk nag mbër moo indi da nga wane sa fulaa faay de. mais ñoom de. non umatam moom moo lépp parce que umatam ba gisee ma def nii làmba ma ne yëpp ne motul motul benn daf arrière mooy day jël encadré ma xam lu war a def bu xolam bu tàng mën a jël jël am am ndam mooy laajte gerte lu mu war a def ne warul ko def laajte gerte lu war a def warul ko def tey toj du làmba comment moo na niil. combat moo ne daan dafa naan liir comprendre kon nit nga war a bàyyi xel boo nekk ñu yëpp waa géej waa ne yaa kon da war a encouragé bopp bu baax parce que combat combat Yékini Yékini kon Yékini war noo yàqam Yékini moo yow yaa da nga Yékini nga yëkk nga nak ko ko yëkkati ko parce que loolu doo mbër mbër da nga wane nga xool ci nga xool ci gannaaw mu Eumeu Sène nag yàlla xam na bëri trop waa Lac de Guiers kon moom doo gaaw am xaalis bu bëri lamb dina lamb dina a yàq. ok jaajëf bërëm gaa gis nañ ko amuñu lu leen neex ndax tamit dagg sa bee niil dafa metti mais man damay ñaan rek waa CNG fekkee Lac de a mën nañ ko éliminer si lamb ji ñu éliminer ko quoi. mais grand ñaar tamit mooy bëree de. ñaar mooy bëre mais nit ki mënoo ko daan moom ñoo bëgg a bëre ama seen dafa jógee si defet day ñëw téye boppam mais moom moo ne màgg na xale la na ñoo imposer lu mu liggéey mais Lac de Guiers xaw na ko attaqué sax def ay affaire pourquoi mu am avertissement ba mu. Lac de Guiers attaqué attaqué bi yëpp attaqué wul day nax nit ñi day caan xelu nit ñi. ko quoi gëmul li muy def bu ko gëmoon làmb ji jeex na bu yàgg dañuy waxante dëgg man jaamu nga laa dëgg damaa ñëwoon pour seetaan Siteu mooy sama mbër mais tamit Lac de Guiers dafa bëriwul nit ñi xam. mais bi leen gisee daal yéen amateur làmb yi nu mu jeexee neexu. neexuñu kontaanuñu ndax buñ sañoon la am man Lac de Guiers ay supporteram laa ñërëm am nañ xolu muñ yàlla may na leen xolu muñ match nul mi moom wax dëgg fa yàlla bettuñu la da guerre mi jigéen ñi ngir yàlla war a suyali fu ñu neex ma maa ngi nii taxaw mu ñëw fekk si xam naa ne am nañ xolu muñ góor ñi nag waxuma ñoom la lam dafa métti yor sa 3000 wala sa 15000 wala 11000 ñoo dagg sa ticket amoo si la ne dafa métti jóge fu sori ñun dëkkuñu fi. daam nga la sa jàpp nga ñoom ñaa ñëpp bëree nañ. sëñ bi ama seen lu mu war a def rek la war a def la da moom moo waroon ñëw tay ñaata yoon lañ bëri trois fois. ama daan ko benn ñu niil benn tey moo ne woon leeral bi pour revanche am moom moo doon ñëw fekk si mais ñëw jéemu sa fekk si ay taxaw nii nii nii kii xamul mesure barrière la doon moytu wala nu mu demee kon naa firi bu neexee moo ko sonal ñu ñu maa ko mas ma yor naa mas yu bëri billaa walaay taal yi neexul dagg sama tike seeraanoo doy kenn xamul lam ni lay saf yaa sonn billaahi